boo ko jël teg ko sama néeg naan dangay woo Madior Ndiaye naa la nokk ci biir kër gi. Eh! <laughs> Birahim yaa ngi seetaan loo xamante ni bis bu dalee sa kaw nga am sérieux problème. loolu ci pavillon spécial. sa souffrance bi ci boppam laa bëgg mu jeex. il faut que je trouve une solution. dangay xool nga xam ne moom mooy sama première noonu dangay fanaan néegam ba di ko sauver. yow lan laa la def yow wax ma li nga bëgg ma xam ko ah da nga yaakaaroon ne benn doom nga dem ba nekk mère yëg na sa papa am na beneen doom nga ne sa xol day dagg jàppal ne di nga di